xaaj euh, actualité yi si ñaari ponk mooy maanaam actualité politique nationale ak actualité africaine ci deuxième vidéo bi ñu def actualité géopolitique mondiale di ko tàmbalee nag ak njiitu jëwriñ ji nga xam ne moom mooy njiitu Pastef di Ousmane Sonko dama gis mu def benn nataal ak benn manifestant bi nga xam ne photom dafa siw bi ñu ko wanee mu yore doj di sa kosaan bi moom nag moom la njiitu Pastef dalal ñu fotowu ma ne communication bii nga xam ne euh, kii di njiitu Pastef def na ko communication à double tranchant la ran moo tax mu nekk une communication à double tranchant ndaxte xam ngeen ne ñii nga xam ne ñoom ñooy opposants yu bees yi mun nañ sukkandiku ci image boobu noonu ñoom tamit bañ ta tollowee ñuy def ñuy prôné lu ni mel parce que xam ngeen ne dañoo woote woon résistance waaye résistance bi ku nekk ak na ko abordé ñun ci suñu wàll résistance d'opinion lañ doon def parce que lépp li nga xam ne dañ ko doon def ci suñuy opinion kese lañ ko jagloon mais am na ñi nga xam ne dañ ko doon booleeg ay manifestation te gis ngeen ne manifestant yi nga xam ne amoon nañ ci réewum Sénégal ay manifestation yu violente la woon donc li lii nga xam ne ñiitu Pastef def na ko communication à double tranchant la ndaxte mën na am lu ñuy wax retour de manivelle mooy maanaam yow image bii nga xam ne da ko wasaare ñaanu yàlla ñoom ñu toll seen nguur toll ci période boobu noonu dina mel ni ñooñu tam mën nañ cee sukkandiku pour def li ni mel waaye lenn kese moo leen si mën a muccal mooy maanaam lépp li nga xam ne ay liberté de manifester la ñu bañ koo xañ opposition bi bu boobaa dinañ am benn lay bi nga xam ne bu wóor bi nga xam ne manifestation violente doom am ci réewum Sénégal bi parce que gis nañ ne li nga xam ne moo doon jur manifestation violente yëpp mooy interdiction euh, systématique yi nga xam ne doon am préfet yi gouverneur doon ko amal chaque chaque fois Pastef bu wootoon manifestant loolu moom bu fekkee ne def nañ ko mooy maanaam opposition bés bu demee ba nga xam ne toll na ci ne dafay manifester ñu leen di bàyyi ñuy exercer seeni manifestation moo xam sitting la moo xam marche la moo xam forme bu munti doon bu ko defee nag ñoom du ñu am benn lay bi nga xam ne dinañ mën a user de violence lii mooy sama gis-gis ci image bii nga xam ne gis naa ko parce que communication dafa nekk li nga xam ne lu am solo la te lépp li nga xam ne da nga koy def ëllëg mun naa walbatiku sa kaw moo tax ma ne image bii nga xam ne gis naa ko ñoo ne benn manifestant sa yorab xeer de sànni njiitu Pastef dalal ko mun na nekk une communication à double tranchant léegi nag ñëw ci kii nga xam ne mooy Pape Alé Niang bi nga xam ne dañ ko nommé fraîchement mu doon maanaam njiitu euh, RTS télévision nationale xam ngeen ne démb def na dernier live am waaye moom itam génnee na livre am bi nga xam ne da koo duppee euh, affaire aji Sarr Ousmane Sonko ou le complot d'État xam ngeen cee jamono ay yenn baat kese lañ daan dégg yéen ñëpp xam nga leen ma Madiambal jaañ bi na dafay livre ci affaire Ousmane Sonko Adji Sarr Cheikh Yérim Seck bi na fi livre ci affaire Ousmane Sonko aji saar ñoo ne ñoom seen livre yi livre yi nga xam ne maanaam nguur geeg lañ doon jàppal tànk kii di euh, Pape Alé Niang nag moom nga xam ne dañ ko xamee journaliste d'investigation ñëpp ne dafa gën a jege opposition bi moom tam def na livre solos livre bi mooy léegi lii nga xam ne moom mooy sénégalais yi ñoom dinañ mën a def maanaam la balance entre lii nga xam ne Madiambal Diagne wax na ko lii nga xam ne Cheikh Yérim Seck wax na ko ak lii nga xam ne Pape Alé wax na ko waaye ci livre yi dafa may mbir yi nga xam ne moom moo ci ëpp solo mooy maanaam ñii nga xam ne ñoom ñooy les principaux acteurs de cet événement la Ousmane Sonko acteur la Adji Sarr acteur la Ndeye Khady Niang acteur la kii di euh, euh, capitaine euh, Touré acteur la si bu fekkee ne moom dafa jël ay témoignages yi nga xam ne dafa jóge si Ndeye Khady Ndiaye jóge ci Seydina euh, Touré bi nga xam ne moo nekkoon capitaine bi ak Ousmane Sonko mun nañ wax ne équilibre de l'information mais maanaam dina tax ba livre bi nga xam ne euh, bind na ko mu nekk beneen mu utek li nga xam ne ñoo fi ci doon am te waa nguur gi doon ko def te loolu mu meloon ni commande politique la loolu dafay mel ni dafay ñëw pour équilibrer lu ñuy wax information léegi sénégalais bi nga xam ne yow bëgg nga xam les tenants et les aboutissants yow boo liiree livre Madiambal Diagne ci livre Cheikh Yérim Seck jëm ci wàll boobu noonu nga liir livre Pape Alé Niang tu pourras te faire ta propre religion par rapport à cette euh, cette cette cette histoire euh, sombre de de notre euh, de notre démocratie ndaxte bokk na ci li gën a gàx yàqal image u euh, réewum Sénégal bokk na ci affaire euh, Adji Sarr Ousmane Sonko bi nga xam ne dafa téye euh, réew mi ànd na leen pendant lu mot presque ñaari at ba ñetti at ma jóge ci mbir moom noonu ñëw ci meeru Thiès bi nga xam ne dafa ne yor na liste yi nga xam ne ñoom ñëw bénéficié wu ci mbuur kat waaye moom mënul wasaare liste boobu noonu xam nga olof Njaay dafay wax ni ku dee si marché yaa tàgg sa bopp waaye am na ay nit yi nga xam ne kenn mënu leen tàggee ci marché rawatina bu ñu doon ay kilifa diine kilifa diine moom daanaka ci jàkk lañ koy tàggee te nee na ci biir list boobu noonu am na ay kilifa diine parce que dégg nañ. ay hommes politiques yi nga xam ne fësal nañ seen seen seen seen seen euh, nar ci wàll boobu noonu nga xam ne te séddal nañ ci lu bëree bëri bëri bëri ay cinq hectares ay dix hectares ay hommes politiques ay hommes d'affaires ba ci ay woykat waaye nee nañ kilifa diine yi mënuñu tudd seen tour pour bañ leen exposé lu ñuy wax à la vindicte populaire ndaxte xam ngeen ne am nay mbir yu bëri yu fi jaar concernant euh, posture kilifa diine yi ci événement politique yi nga xam ne fi mujjee am ndaxte ñu bëri dañoo jàppoon ne ñoom ils étaient contre le parti PASTEF seen acte yi ñu doon posé yëpp daal da doon dem ci maanaam ñàkk ànd ak waa PASTEF tey nag bu fekkee ne mbir moomu am na seen tour di jib ci penc bi mën na nekk li nga xam ne lu leen di gàkkal ba tax na ba kii di meeru Thiès wax ne moom. liste bi yor na ko waaye kilifa diine nga xam ne cee bokk mënul wax seen tur pour bañ leen exposé à la vindicte populaire léegi nag pour tëj ci actualité africaine xam nga euh, woykat bi nga xam ne mooy Youssou Ndour moom moo woowee ne ku nekk làngal ak sa waay bu neexee su mettee mbëggeel noonu la ci relation lépp li nga xam dafay jëm ci état aussi loolu da cee am solo mooy maanaam am na ay om d'état yi nga xam ne ay gaañ lañ ay waay lañ te kii di euh, duo Sall Ouattara ay gaañ lañ woon ñoom ñoo doon daanaka bloqué lépp li nga xam ne da doon jëm ci kuréel gu ñuy wax CEDEAO ndaxte bu ñu nee dañoo bëgg a limiter mandat yi ci fii nga xam ne mooy CEDEAO ñoom ñoo ci dóoroon seen conc mooy maanaam ñoom ñoo taxoon ba mbir moomu antuwul léegi nag xam ngeen ne euh, Sall dem na léegi Ouattara moo fi des démb kii nga xam ne moom mooy sunu njiitu réew di son excellence monsieur Bassirou Diomaye jaxaar Faye ci lu ñuy wax. Euh, fonk sa dëkkandoo parce que xam ngeen ne moom bu mu jëlee nguur gi dëkkandoo yi la nekk di wër tàmbalee ko fii nga xam ne mooy Mauritanie ñu dalal ko fa dalal bu rafet ndaxte ci tradition africaine dañuy wax ne euh, maanaam gan dañ koy teeral dañ koy teeru dañ koy teral fu mu dem nag ci Mauritanie teeru nañ ko teral nañ ko fu mu dem ci euh, Gambie teeru nañ ko teral nañ ko ba ci Guinée Bissau waaye démb ba mu demee fii nga xam ne moom mooy Côte d'Ivoire kii di njiitu réew ma di Alassane Dramane Ouattara dalalu ko mooy maanaam dafa yónnee euh, euh, maanaam teeruwu ko pas dalalu ko dalal na ko mais teeruwu ko c'est le terme exact teeruwu ko dafa yónni vice président loolu nag dafay wone lii nga xam ne moom mooy xaar son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye ndaxte xam ngeen ne euh, kii di son excellence monsieur Alassane Dramane Ouattara ba muy ànd ak njiiti réew mi Macky Sall xam ngeen ne. ñoom Macky Sall amoon na ku ñuy wax sonkoom moom mu am ku ñuy wax Sorom moom pour le moment kii di Guillaume Soro maîtriser na ay mbiram ndaxte fexe na ba bu la ko ko ci fànn yëpp ba bokkul ci élection ba ñemewul sax teg tànkam ci réew maanaam euh, Côte d'Ivoire waaye kii di naataangoom bi di Macky Sall amul woon sens boobu noonu mooy maanaam munu loon exiler kii di Sonko te jàmmarloo bii nga xam ne jàmmarloo na ko moom da cee jëlee lag léegi nag lajj léegi nag laaj bi mooy moom mi nga xam ne ñoom ñoo bokk espace IMOA bokk espace CEDEAO ak jafe-jafe yi nga xam ne euh, kuréel gi am na ko parce que wax naa leen ne démb Patrice Talon door na blocage ci gaz bi nga xam ne moo doon jaar oléoduc bi nga xam ne mooy jaar ci réewum Niger pour euh, chinois yi mun see jot tëj na ko rap. ginnaaw bi caani ne moom dafay fermer frontière am lànk la di ko ubbi pour lëkkaloo am léegi nag laaj bi mooy euh, léegi kii di Bassirou Diomaye Diakhar Faye ban posture lay am pour mën a faire bouger lii parce que moom wax na ne lépp li nga xam ne dañ ko bëgg am ci wàllu koppar ci wàllu euh, maanaam intégration africaine lañ ko seen si lañ si bëgg a sukkandiku te wax naa leen ne ñun suñuy réew Afrique luy suñu faiblesse mooy suñu woroo mooy suñu division ndaxte wax naa leen ne réew yi nga xam ne dañoo bëgg a développer ñoom dañuy déggoo mooy maanaam dañuy booloo waaye gis ngeen Afrique lii nga xam ne mooy noonam bi gën a rëy mooy lu ñu wax les démons de la division te réeroo boobu noonu nag du ñu jural dara lu dul jàmm te déjà Mali Burkina ak Niger wax nañ dañuy jël seen yoonu bopp loolu nag bu ñëwee ak jafe-jafe bii nga xam ne kii di Bassirou Diomaye Faye nar na koo jànkoonteeg réewum Côte d'Ivoire vu ko ne bokkuñu maanaam ay sensibilité nekkuñu ay waay nekkuñu ay gaayen loolu tamit mun na indil kuréel gi beneen jafe-jafe ndax dinañ ko surmonter wala duñ ko surmonter yàlla rek xam waaye li ci kanam raw li seen xarit la woon Léon Balthazar le caméléon di leen ñaanal kenn lu jàmm di leen jox di daje ci kanam pour seen ñaareelu vidéo jëm ci actualité géopolitique mondiale